gaa ñi jéem leen jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale gaa ñi jéem leen jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale aduna xëyu rekk jikki daa di sotti benn benn ñaar ñaar moo lay yóbbu ñett ñi na ngeen jéem kanye nangendee asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu ba tey ñu nekkaat seen émission jotaay ak boroom tawféex tey ñu nekk ci pàcc bi nga xam ni moo jëm ci li ñuy xam ni moom la ñuy wax seere tubaab di ko wax constipation seere boo ko déggee mooy nit koo xam ni dafa am jafe-jafe génn ay dem àllam maanaam nit ki saa yu lekkee lekk bi bu reesee daa am ay mbalit yu ñu war a tuuri kon kii am na jafe-jafe tuur mbalijam moo xam mbalit bi la jafe am jafe-jafe génn ko moo xam mbalit mi moo réer ci kër gi waaye daal am na jafe-jafe génne ay dem àllam am na ñoo xam ne dañuy dem génne lu yam ay xam ne dem duñ génne dara mais ñoom ñëpp ñoo yam dañu am lu ñuy wax constipation constipation na di seere dafa am ñaari façon seere dafa am lu ñuy wax constipation simple ak lu ñuy wax constipation moteur soo déggee constipation simple mooy nit ki nga xamante ni moom seereem li ko ko yóbbee ci moom la jóge maanaam ni muy doxalee la moo xam benn ci lekkinam na muy lekkee na ko war a lekkee wala ni mu koy lekkee wala la mu lekk wala waxtu mu koy lekk baaxut ba tax mu indil ko jafe-jafe wante cëram yi nga xam ni ñoo yor wàllu reesalu ñam bi muy assimilation bi yor tamit wàll bi nga xam ne moo jëm ci li nga xam ne mooy génn dem àll yi cër yooyu yëpp baax na waaye am na jafe-jafe daal moom dem génn ay dem àllam li ko yóbbee nag moom dundinam la lekkinam la walla moom ci boppam ci doxlinam dafa tàmm di am yëg-yëgu dem kabine bu yëgee ne war naa dem kabine lu ñuy wax stimulé bi yëg na ni dafa war a dem douche waaye demut mu toog bañ a dem dinga gis ni ñàkk dem bi nga xam ne demu ko dana toog ab diir dana yëg ni safatul dem kabine waaye nag kabine ya ña fa ba tey kon dénnewu ko yi amatul yëg-yëg bi waaye nag na xam ni ma fa ba tey luy lu ciy xew mooy lan yeneen dem àll yu bees yi ñëw ñoom bu ñëwee dañ fay fekk yafa fa newoon kon mu fay gën a dajaloo bu ko defee li nga xamante ni mooy kakam bi di def réabsorption ndox mi ak ion yi mu électrolyte yi bu ko defee cabinet bi di fa gën a dijji di fa gën a wow maanaam xaar moo leen ci misaal li ma bëgg a foofu lii mooy ba tey butit bu mag bi lii mooy colon bi lii mooy colon bi lii mooy kakkam bi fii la butit bi bi ñu wax solom siw muy intestin grêle bi bi def juróom ñetti mètres yi colon bi moom di def mètre ak genn moom nag nit ki bu fekkee ne dafa war a dem cabinet maanaam cabinet yi fii lay dajale ci li ñuy wax ampoule rectale bi ci ampoule rectale bi lay dajale olof di ko wax nunkurunku fa la cabinet yi di daje bu demee ba yëg ni fees na fii ci canal anal bi muy ruq nunku bi ubbeeku ci ndimbalu extincteur yi pour cabinet yi jàll ci suuf bu fekkee ne nit ki dafa saf kabine demut day yëg-yëg bi dootu ko amati li ciy xew mooy cabinet yi ñu ngi fi ba tey waaye yëgatu ko mais yeneen cabinet yii di ñëw dañuy continuer ñoom di dem di dajaloo si ci ampoule rectale bi mooy ci nunqurunku ba bu ko defee kakam bii nga xam ne moom liggéeyam mooy ndox yi nga xam ne mu ngi ci biir dem àll yi ak yeneen ferñeent yi xam dafa rëccoon te ñu yaram bi soxla ko moom lay defaat lu ñuy wax réabsorption da koy xëccaat manque ko delloowaat ko pour mu dem ci dara pour mbir mi jëriñoo ko bu ko defee nga gis ne kon cabinet yi kon daf fay gën a bari gën ba bari kon mooy kon gën na fa dijjee ndox mi nga xam ne ñu ngi ko ciy dindi kon mi ngi fay gën a dëgëree gis ni kon boobaa nit ki moom lu koy dal buy dem douche day nalu ba sonn cabinet yi du mën a génn moo am na ñoo xam ne dañuy dem ba tamit di jël seen baaraam di ko ndoxati loolu nag li koy ni mooy ñàkk yëg bi mu amee yëg-yëgu ne war naa dem cabinet ñàkk dem bi mu war a bu mu demul rek moo ko indil problème boobu te bu yàggee nag day dem ba perte stimule bi maanaam butit bi nit ki ni mu amee yëg-yëg di ko wax ni yow demal kabine dootu ko wax day bàyyi noonu bu ko defee moom cabinet yi daf fay dajaloo rek mu gis ko xam day toog fukki fan semaine fukki fan ak juróom du dem cabinet te du yëg ni moom dafa war a dem cabinet du yëg dara bu ko defee loolu lu ko waral mooy yëg-yëg bi lay bàyyi doog ko joxati waaye nag colon bi dafay adapté wu ci situation bi maanaam day fexe ba cabinet bu ñëw rek moom mu fexe gën ko jël ndax moom colon bi di def mètre genn wàll moom dafa élastique dafay xëccu day taaweeku day ñoddeeku bu ko xam dafay ubbeeku di gën di jël cabinet bi bu yàggee ne lu muy indi day dem ba nga xam ni colon bi day perdre élasticité bi mu amoon maanaam comme bu doon élastique nga xëcc ko mu taawi bu yàggee boo ko bàyyee dafay mbaq colon bi dafay daal di mbaq léegi dootul am motilité bi maanaam wañox bi mu doon am pour di pousse cabinet yi muy jàll dootu ko amati dafay esthétique bu dafa gis nit ki day toog ay fan dem cabinet waaye bu demee ba soxla pour dem day dem dana nalu ba sonn li génn dana jafe dana dëgër nga xam day dem sax moom it ba tey seen loxo la ñuy utiliser di génn li nga xam mooy cabinet bi kon ci tënk loolu bokk na ci li nga xam ne day tax nit ki di am seere seere boo xam ne nag moom ci dut xoolinu boppam la ko amee muy constipation simple boobu mais am na leen lu ñuy constipation moteur constipation moteur boo ko déggee mooy nit ki moom mi ngi lekk ni mu war a lekke mi ngi naan ndox lépp teg na ko ci yoon wante gis na ni dafa am jafe-jafe dem àll lu ko waral mooy cër yi nga xam ne ñoo yor reesu ñam bi muy assimilation bi wala cër yi nga xam ne ñoo yor wàllu génn dem àll bi yi ñoo am problème moo dañu gis koo xam ni ñam bi mu lekk dangay gis ni du rees maanaam comme bu doon mbaq moom nii la xaw a mel mbàq nii la mel def poche lii mooy li jëm ci butit bu mag bi nga xam ne moo de butit bu sew bi intéressé wuñ tey mais ci mbàq mi nit ku bu lekkee ñam bi dugg fii li ñuy wax assimilation bi nga xam da ko war a dajale yóbbu ko ci butit intestin grêle bi mu jaar ci dem ci kii bi euh, élayon beeg genome beeg yu mel noonu ñam bi daf fay des ci poche bi bu ko defee daf fay nëb bu fa nëbee day def ngelaw ci biir bi moo na gis ñoo xam dañuy gis ni seen biir day def xurr fuut benn genre aérophagie ñi ñi di wax météorisme biir bi gonflé sol ngelaw nga xam dañuy am yëg-yëgu dem kabine bu ñu demee cabinet ngelaw rek la ñu gën day mel ni manque bu toj comme bolo rek xam naa gaa yi xam nañ bolo bolo moom bu demee douche ngelaw pëf pëf lekkam digestion bi moo baaxut maanaam assimilation bi baaxut ñam bi dafa dajale mu ngi mel ne da nga jëloon mbuus imperméable bi ñu def glace yi nga def ci ceeb ak jën ak ndox comme li nit ki lekk takk ko boo ko bàyyee ñaare fan boo ñëwee da ngay fekk mbuus bi dafay funki ndax lan nëb nëb bi mooy créer gaz bi même facteur boobu nag mooy amaat fii ci nit ki nëb nëbu ñam bi nga xam ne moo ne ci biir nga xam ne assimilation baaxul reesut indigestion boobu mu am mooy tax biir bi day gonfler mais nag comme que booloo moom dafa am gémmin am suufam day def ngelaw li day jaar ci gémmin ak suuf bi moo day yendee prr ak géex gu bëri ñoom rek lay boole bu demee douche tam da nga ci gis koo xam ni buy dem douche day laqatu sax day bàyyi ba ñëpp tëdd mu fu mu laqatu pour dem ndax bruit bi muy génne booloo guddi rek lay dem duus pëf pëf pëf pëf loolu bokk na ci li nga xam ni li koy ni mooy lekk bi assimilation bi baaxut moo xam polypeptide pancréatique ci ci ci ci pancréas bi mu war a indi indiwu ko substance P bi VIP bi yooyu ñëwut wala nga dem sax ci euh, res bi wextaan bi mu war a indi ñëwut wala sax sérotonine bi nga xam ne moom la mbàq mi di sécrété ñëwut maanaam am na daal ci assimilation loo xam ne doxut ba tax mbir mi jafe-jafe somatosine yeeg polypeptide pancréatique yeeg VIP yeeg substance P yi loolu mën na nekk am na nag koo xam ne nag reesal bi sax am na dem àll yi sax indi nañ ko ñëw na ba ci colon bi mi ngi ci ampoule bi muy nunkurunko bi maanaam bii sax kii sax moom cabinet yi sax ñu ngi fi waaye day gis ni moom bu demee cabinet day forcer ba sonn dara du génn wala tuuti mooy génn moom it day obligé di jël ay baaram di ku génn ndax lan cabinet bi moo dajaloo fii ci li xam ne mooy ampoule bi ci nunkurunko bi kooku lu ci bëri lu ko indi nag mooy ñi am li ñuy wax irritabilité di colon maanaam dafa irrité lu ko irrité mooy day fekk ni koo xam dafa stressé wala muy jaxasoo wala mu amoon ay problème wala mu nekkoon ci yenn tiitaanga yoo xam ni moo dem ba irrité ko ba nga xam ne noonu lay continuer tant que faju ko day continuer rek di xal di buy dem kabine day jafe ci moom ba day jël baaraam am na koo xam tam dafa am jafe-jafe bu demee cabinet lu muy gis dana génn ngelaw lu bari waaye cabinet day mel ni cabinet bëy dëgër mel ni ay égaat ànd ak yor tax yu mel ni ñendi xit kooku tamit ñu bëri ñu ko am li nga xam ni moo la ko indil mooy en sigmoïde bi moo am problème am na ñoo xam ni dañuy gis sax dañuy dem cabinet buñ demee lenn lañuy ñuy génne ngelaw rek day mel ni ñoom dañ dem rek pour génne ngelaw mais ngelaw loolu bokk ak boloo ngelaw bu muy génne mais bi day suus nga xam ni kooku ci biir bi ci motilité colon bi foofu mu am jafe jafe-jafe nga gis ni am na ñoo xam tam dañuy dem buñ demee cabinet lu ñuy gis dañuy gis dañuy toog ay fan mën nañ toog fukki fan ak juróom dañu dem cabinet waaye bu demee cabinet danañ génn normal waaye la ñuy génne day bari lool loolu ñi am lu ñuy wax mégacolon ñoom lay ñoom lay daal gis ni kon soo xoolee xeetu seere yi bari na li ma foofu mooy seere bu nekkoon ci ci constipation moteur bi ak li ko waral ak li ko sabab li ko sabab nag moom ngay war a fexe faj ba loolu deñ moo tax seere yi bari na ki nga xam tam day dem cabinet ci tàmbali mu gis ne am na lu génn mais mu gis ne li des da koy force ba son dina lu mais du mën a génn kooku tam am na li nga xam ne moom moo ko indi am na koo xam ne dafa am lu ñuy wax diverticule du colon maanaam moo am ay put put yu mel ni ay soccat ñooy ne fii ci anse sigmoïde du fii bu ko defee fii lay nekk nga gis ni moom diverticules yi ñoo koy yóbbee moom day toog ay fan du dem cabinet waaye bu demee bari ci du dem cabinet ci biir bu daw lay la koy la koy deme gis nga tam am na ñoo xam ne seen biir bi day def xurr puuf cabinet yi tamit mm, buy génn day mel ni lu mel ni tike deke mais day tooy te tuuti mooy génn dootuñu mun génne li ci des am na ñoo xam nag seen cabinet moom day mel ni ay xeer ànd ak rataxit bu bari yu mel ni ñandaxit lu mel ni laalo seen ndigg di metti seen bopp bi di diis lu bari bëri di lëndëm ñuy naqari deret loolu tamit bokk na ci yoo xam ne ay xeet la yoo xam ne dana ko indil nekk ci wàllu seere nga gis ni kon bu ñu doon tënk seere nekk na loo xam ni lu doy waar la nekk na loo xam ni lu mën a indil tam nit ki ay jéeye ci wàllu wér ndax moom mën na indi yeneen feebar mën na ni soubassement wu yeneen feebar moo tax nit ki bu ko amee tam dafa war a fexe ba mu xool lan moo tax moom mu seere cause bi li waral seere bi nga dind ko ndax nit ki dafa war a dem toilette normalement régulièrement te du ci am benn benn jafe-jafe loolu kon bokk na ci moo tax kon nit ki pour bañ a seere war na xool kon boppam la muy lekk nam ko war a lekkee kañ la ko war a lekk ak li mu war a lekk ak waxtu ma ko war a lekk teg ci nit ki war na fexe ba ci lekkam mu lekk lekk yoo xam dafay bëri li ñuy wax cellulose ndax cellulose day dimbali nit ki ci nga xam ni mu am transit bu baax cellulose yi ko am bari na lu mel ni chopame bi ñu koy wax brassica oleracea am na 16 virgule 2 grammes de ci 100 grammes yu ne baax na nit di ko di ko lekk lu mel ni betterave bi ñu koy wax rachis vulgaris moom it am na cellulose bu bari lu tolloog quinze virgule 2 nga jël lu mel ni gerte bi arachis agoya am na cellulose 3 grammes nga jël lu mel ni pomme de terre solanum tuberosum moom it baax na am na 3,6 mg ci 100 g yoo jël ci li nga xam ne moom mooy cellulose même tomate bii baax na ci mi ko lycopersicum am na moom it 12,8 cellulose baax na kon nga gis ni yooyu yëpp ay ferñeent yoo xam nit ki bu ko di ko lekk dana ko dimbali ba nga xam dana mën di dem toilette du am benn jafe-jafe te ñu moytu nag di jël surtout ñi nga xam ne seen biir yi day def ngelaw xurr kuuj fu ñu toll di génn ngelaw ñooñu nañu di jël li nga xam ni mooy produit lacté yu bari maanaam lu mel ni soow lu mel ni meew lu mel ni fromage dañ koy jël di ko di ko moytu kon temps bi moo ñu galan kon faw ñu tënk ndax ñu mën a joxe yóbbal ak tawféex waaye daal ci tënk loolu lañ doon wax ci wàllu li nga xam ne moo jëm ci seere bi. bu bi moom tey nag ci wàllu ñaan ñu ngi defal koo xam ni dafa bëgg ay mbiram ubbeeku moom it ba tey liñ koy wax mooy. na fexe ba jël li nga xam ne mooy saar bi ñuy wax sóoratu Waaqia moom lay jël mu bind ko sóoratu Waaqia ku ne xam na ni am na ñeenti baat yu ñu wax azim azim yu ci nekk azim bu nekk nag day ubbi miim ba ca nekk Alxuraan am na ñeenti saar yoo xam ne dañu commencé xul muy xulaay xulaay xal xul wallaahu naas ak falaxi bu ko defee day jël miim bu mu ubbi ci benn azim bi mu jël benn saar bu tàmbalee xul mu dugal ko fa ba saar bi jeex mu jël loolu jàmb ko saafara boole ko ñeenti reenu poftan waaye bii dem ci garu poftan bi day dem wet bu nekk ci poftan bi mu dagg fa benn reen muy ñeenti wet yi mu jël ñeenti reen yooyu jàmbee ko saafara bi sangoo ko jël li nga xam ni mooy reen yooyu mu demaat fa mu daggee woon ci poftan ba reen yooyu mu suulaat ko foofu ci kàttu Yàlla ay mbiram dana ubbeeku ay mbiram dana dox kon loolu lañu indi woon tey ci li nga xam ne moo jëm ci li nga xam ne moo jëm euh, ci yóbbalu tawféex ci seen émission jotaay ak boroom tawféex di leen jox beneen daje ci beneen waxtaan asalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh gaa jéem leen jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la la jàppale aduna xëyu rekk jikki daal di sotti benn benn ñaar ñaar moo lay yóbbu ñett gaañi naa ngeen jéem gaañi naa ngeen